وسكون إلى ولي المؤمنين وسكون salaata wa salaam wa la على النبي وآله lu وكيل من قد آمنوا كفروا برسلي قل لهم نصر العزيز الحميد delloo siyaare bi di leen xamal ni tànk yi tànk yi fedd li kóllëre rekk la nee na ki nu tax danoon sama wëllëre ba ñépp xam ko nee na waxtu wi mu làqu it bëggoon naa teew waaye munta teew ci saase nee na ma jaayante woon ni fas naa yéene dikk ba tiim ko ñaanal ko nee na ñaanal naa ko ba ma déggee xew-xew bi booba tey may ñaan maa ngi ko ci boole waaye ne lii da doon yéenay boppam te nee na moom de lu mu fas tanaat ko ngir yàlla ne damay ñaan yàlla dimbali ma ci ba ma def ko ndax feeg defuma ko du jog ci sama bopp moo tax tey jii nee na ma jóg ni naa gëdd ñëw fi mott li wërale li ma waxoon ma sàmm ko ma def ko te sante ko yàlla mi ma ko may tey ñaan yàlla it tànk ak ñaan yi ak yéene ji yàlla ko yàlla nangu te jotale ko ci yool bi moom mboolem bokkam yi mu fi nekkal ak mboolem jullit yi ci biir suuf nee na ñëpp xaj na ci yàlla na leen yàlla xettali te yërëm ñëpp te jéggal ñépp te nun ñi fi desandi yàlla tàgganu te not nu ci lislaam ci nam ko bëgge ak nam ko rafetloo ak nam koy gërëme ne yàlla na ci yàlla yonent bi saxal ci sunu dund ak sunu paato ak sunu dekki ak sunu teew fa kanamam népp naan ak liimaan ak lislaam ak lihsaan ci daraje sëñ Tuuba nee na sunu gëm ci yàlla ak sunu topp yàlla ko yàlla rafetal yàlla nañ ko yàlla sàmmalit ba seytaane bañ ci cër ci àdduna ak ndax ndax lislaam bi rek la nam ci la ñuy dox ci la ñuy wax ci la ñuy yéene ci la ñuy déglu ci la ñuy digle ci la ñuy tere ci lan fas yéene saxit lépp luy lislaam rek noo ci biir waaye lu génn lislaam suñu yoon nekku ci waxuñu ca defuñu ca dégluwuñ ca terewuñ ci lislaam rek ndax ne sëñ Tuubaa mi tax ngeen topp ne lislaam rek lañ ko topp nee ñu baatin te yàlla may leen basira dañ dajeeg moom dañ koo seet ba xam ni yàlla kese rek la ak sopp yonent bi ak fas yéene ne ci lislaam nee na loolee moo tax ñu topp ko nee na loola nag moo fi nekk ba tey kon nun ñii ngeen di topp ak yéen ñii topp diñu xoole sëriñ yal nañu yàlla dimbali ban nekk ca yàlla gërëm ci àdduna ak àllaaxira ak lu yonent bi gërëm te sukkandikoo alxuraan te dëppoo ak moom te bañ a moom ci dara ak sunna si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee loolu rek mooy suñu nee na loolu lan fas yéenee ànde ak yéen tey ñaan yàlla sunu borom yàlla bun ci waru yàlla bu ngeen ci waru ndax boo lëgeet bokk teew fa sunu sunu borom nu gërëmante yàlla gërëm nu yonent bi gërëm nu sëriñ bi gërëm nu loolu rek dañuy sàkk te di ko sàkkul ñépp nag kon nag nun ñëpp nan góor góor bu baax ci diine lislaam ji ci jàng ko ba xam ko xam nooy jaamoo yàlla xam say farata xam say sunna te ko jëfe nam ware ci gépp fànn nag lu dul loolu nga bañ koo yittewoo te woyofal adduna ak ci xol yi te xam ni adduna du dara daraam du dara te du doon dara mukk incha allah nee ni ko yàlla binde rek nee ni lay ba ba nuy jeex li nuy def lépp lu ci jëmul ci yàlla rek amul njëriñ ci ñun ndax li ci des day romb yi dem rek yooyu kër kër yeeg dëkkukaay yeeg wata yeeg yére yeeg yëpp du mujj fenn lu tabax rafet rafet ak lu mu rëy rëy yow ma ko tabax yàgg tabax bi yëpp da ngeen mujj doon ab janj rek ngas la suul ci suuf tabax ba daanu sa kaw ngeen laal di janj rek loolu nag jarul ñàkk àllaaxira na ngeen yittewoo àllaaxira te xam ni luy ñëw te du jaas moo ak di teewayam de ku ko woyofal danga ko rëcc adduna du dara du mujj fenn tabax yi nuy tabax ba ca gën a gudd gën caa rafet muy man di saa morom moo tàgg picc yi ngeen di doon ci nawet ñooyam kepp bu nawetee picc yi dañuy dem dagg ca ñax ma rabam tàgg nooyal ko ba mu nooy boof ca toskan ca nen ca bàyyi ay bàyyi doom di toskan muy wuti xont di leen yët bañ ànd noonu a génn muy fu mu xont di ko xont ba mu mën a gisal ba mu mën a gisal boppam waaye waxtu naawtalee balaa cooroon a jot garab gu lépp ni tàgg doo xam fu tàgg yow tabax yooyu tabax yooyu lépp noonu la mel tabax yooyu duna noonu rek lay mel ay janj rek janj buy tabaxub janj ñu ànd di janj rek waaye du ngóora du am am jërtu dërloo nan ko def ngir suturloo ko ba mën a jaamu yàlla lool képp lay jëriñ ak gépp kër boo liggéey ba noppi te jaamoo ko yàlla waxuma da nga jaamoo yàlla nag waaye boo ko jaamowul yàlla wàllaaxira na na. photo yi féewoon tax photo yi téewoon tax tax tax ba. fa ñuy fénc ci yomal xel. fa ñuy fénc fa ñuy fénc ci yomal xel. débit pénc. nooy taaw tabaxu say loxo. nooy ta noonu ngay taaw tabaxu say loxo. ba ñu àtte ba noppi ba ba a góorgóorloo. nan ko def tàgg picc yi rek. surtout lu ba mën a jaamu yàlla. képp. bu dem jotee nga dem loolu doo ngay wax bi asalaamaaleykum wa rahmatullah yaay perte fee noo kon nag ak nite moo war a jiitu na ngay nite ànd ak seen xel te nekk ci li la war ci i farata ak suna ak seen digg ak yàlla ci lislaam te nekk ci seen farata. te nekk seen i farata. yeneen di jariñ ci àdduna. di jariñ ci àdduna. tey lu dagan. tey bu ngeen saxee ci loolu rek. bu ngeen saxee ci loolu rek. lu coow lu bari bari. da ngeen koy dégg waay seen yoon du ca ne. jàmm ju ànd ak jaamu yàlla. jàmm ju àndut ak jaamu yàlla. foo ko dégg du fa sax mukk. jàmm jaamu yàlla rek koy saxal. moom rek ko mën a saxal. man xalaa kulli yadin durra wa faydi wa kafa

bokk ci programme bi national international